alors Magip acteur principal bu Karma tey ñu ñëw seetaan l'un des acteurs principaux de Karma te ñu seetaan euh, dernier épisode bi lan la ci mën a xaar déjà alors pour le dernier épisode je vais pas vous spoiler d'accord je vous dire toog leen ngeen xaar ko et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes que public bi ni ñëpp seet ak euh, parce que aussi le public c'est pas que ça c'est ce qui sont à la maison et tey yàlla def na on a un public international qui est vraiment kon euh, ñu leen wax ngeen xaar ñu rek di leen di leen wax ngeen dolli ñu ñaan. deuxième saison bi nag am beaucoup de rebondissement Majib am ci jabar ami laya ñëpp yéene waat la ko nan nga dundee deuxième saison. c'est c'est l'une des meilleures saisons que j'ai tourné de ma vie euh, on a une équipe très jeune yàlla def ñun ñëpp ñu booloo nekk benn et quand on est sur le plateau on sent pas qu'on est en train de travailler on s'amuse et cet cet aspect du travail il est très important l'amusement parce que ça te permet de de t'accaparer de ton rôle joxe loo mën a joxe le maximum possible donc euh, franchement j'ai rien à dire là-dessus on est là on est bien. question bi nag du man ñeneen ñi ñoo koy wax lu bëri bu ñu seetaanee ne Majib mën naa la ko wax ah Majib dafa réew <laughs> parce que day wax day yuuxu respecté wul kenn alors que dafa calme en même temps. en fait c'est le personnage il faut comprendre un truc il a le personnage il la personne euh, le personnage de Majib lu mu laajte bu laajtee réewande ñu jox ko réewande bu laajtee calme ñu jox ko calme donc euh, c'est pas moi moi je Arfan mais li ma réalisateur bi di wax ak li nga xam ne moom la script bi bind ñun si loolu lañ mën a basé wu pour dundal personnage bi donc on ne peut que faire ça des fois bu jaree ñu réew ñu réew bu jëree ñu calme ñu calme c'est bi nga joué ak Ami si ascenseur bi ñu bëri daf leen daf leen euh, daf leen émouvoir ñu bëri dañ ko dañ ko apprécier dañ ko def ko déjà séquence boobu noonu nañ ngeen ko alors c'était une séquence très compliquée parce que boo xoolee càng ci ascenseur dafa métti mais en fait je pense que l'objectif de cette séquence c'est ñu jàngal ni ñi ne nit ki loo mënti ragal ragal ragal ragal bés boo décidé ne lii nii da nga ko war a def pour mu may la euh, jàmm pour mu may la je sais pas euh, bon jàmm exactement sant sa santé mentale gën ci stable def ko que nit ki amoo dara loo war a mën a ragal loo xam ne àdduna fii ce que je dis souvent euh, rien n'est impossible mais rien n'est jamais garanti donc euh, c'est un peu ça et aussi il est très important d'avoir ces gens-là qui sont derrière vous qui vont vous booster booster euh, niveau émotionnel niveau mental kon te jii ni ñu ngi ñaan yàlla yëpp parce que am na benn ci lors de mes lors des ripostes que les fans font am benn xale bu jigéen bu bindoon ne yàlla na yàlla may ku nekk kenn ku mel ni Magib dans ce sens là c' est à dire que c' est une personne qui était là pour soutenir une personne qui avait vraiment besoin qu'on qu'on l'assiste donc loolu noonu yàlla na ko yàlla may ku nekk amin Malika nag Malika nana nana rey de. yàlla baax na. deeaguma. deeaguma. dee na bon. Ah, on verra de toute façon. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Okay. Gentil. Au revoir.